mbokk yi imaam imaam ndaw dem na rahmatullahi alayhi rahmatan waasian nekkoon fi jàngal ñu waaye dem tamit ba léegi di ñu jàngal allahu akbar demam nekk leçon bu rëy waaye dundam nekkoon leçon bu rëy yàlla yàlla yërëm ko xaare ko aljanatul firdaws al aala fa mu nekk gën fa mu jóge allahumma axfir lahu warhamhu ya rab allahuma agfir lahu warhamhu wa aafihi wa afu anhu akrim nuzula wa wassi mudxala واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس yal na yàlla yërëm ko fa mu nekk gën fa mu jóge allahuma nawir lahu qabra wa yassir lahu xisaaba wa yammin lahu kitaaba wajalhuma zumrata nabiyin wa siddiqin wa shuhadaai wa salihin wa xasna ulayka rafiqa yal na ko yàlla boole ca place yu gën a kawe ya nekk fak yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam multaqal jann maal habib muhammad sallallahu alayhi moom ak ñam fa fekk suñuy mbokk suñuy wayjur ak bépp jullit ba fa ne waaye ak ñun ñii di leen fekk yàlla na yàlla may ñu mujj bu rafet mbokk yi allahu akbar kullu nafsin zaiqatu lmawt wa innama tuwaffawna ujurakum yowma alqiyama faman zuxzixa an innaar wa udxila aljannata faqad faaz wama alxayaatu dunia illa mataaul xurur allahu akbar ñun ñëpp lii moo ñuy xaar ñetti yoon yàlla tudd na ko ci alxuraan ne ñun ñëpp ay dee même malaaka yi dañuy dee allahu akbar bu doon am na ko fii des kon yonent yi des fi comme muhammad sallallahu alayhi wa sallam des fi waaye yàlla def ko ne yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam innaka mayitun yooyu da ngay dee wa innahum mayitun summa innakum yowma alqiyamati inda rabbikum taxtasimuun ne ko allahu akbar muhammad sallallahu alayhi wa sallam afa in maata aw qutila inqalabtum ala aqaabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadur allaha shay'a wa sa yajzi llahu shakirin allahuma jalna minhum ya rab mbokk yi imaam dem na mu nekkoon dëgg-dëgg imaam imaam xaqan allahu akbar rajul min rijali al islaam min rijali al umma allahu akbar borom bi subhaanahu wa taala di ñu melal dëgg-dëgg julli ni ci alxuraan te ñu gis ko macha allah ci imaam imaam ndaw mu nekkoon imaam allahu akbar rahmatullahi alayhi rahmatan akbar laa ilaha illa allah muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa ilaha illa allah muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa yàlla <coughs> na ko yàlla yërëm xare ko aljanatul firdaws al wa jacalnaa minhum a'immatan yahduuna bi amrina lamma sabaru wa kaanu bi ayatina yuqinuun ca suratu sajda mu ne kon imaam jàngal ñu muñ allahu akbar imaam jàngal ñu muñ naam te nag inna allaha ma sabirin yàlla mu ngi ànd ak ñi muñ mu jàngal ñu muñ waaye dund ko yàlla na ko yàlla may mooy xéewal yooyu noonu yonent bi tudd sallallahu alayhi wa ne ñi gën mooy ñii te nag ñu gis ko tamit ci moom mu doon jàngal alxuraan di jàngale alxuraan ñi ko xam dëgg-dëgg nee nañ li génn ci loxoom ci daaram te moqal alxuraan yàlla rek ko ko xam allahu akbar allahu akbar yàlla rek ko ko xam mu doon jàng alxuraan di ko jàngale waaye doon dundu ndekete xadis bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne le meilleur parmi vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne xayrukum man taallama alqurana wa allama allahu akbar mu ko doon dund ndeysaan allahu akbar waaye jàngal ñu ba léegi nii adduna bi ndekete du dara nit ki na engagé wu te yàlla rek a tax yàlla rek a fi nekk lu dul yàlla neen la ñu war a jàng ci moom ne ah sëriñ day jàng di jàngale taalibe yi génn ci moom mokkal alxuraan yàlla rek a ko xam ñi mu gindi yàlla rek a ko xam kon ñu war a jàpp ci moom jàng ci moom mooy ay mbooloo bu ñu nekkee sa ginnaaw fexeel ba ñu xam yàlla fexeel ba ñu xam yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam fexeel ba ñu xam sahabatul kiram radiallahu anhum fexeel ba ñu xam nit ñu baax ñëpp bul leen wax leneen ak keneen ba ñu fàtte yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam imaam Alioune Badara Ndao jàngal nañu ndekete priorité priorité yëpp moom mooy borom bi subhanahu wa taala moom mooy kàddu yàlla mooy alquran moom mooy sunnatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mooy jàngale sahaaba yi radiallahu anhum ajmain